kum wa rahmatullah mbokk yi ñu seetaan ci Lutte TV point com ñu ngi leen di nuyu bu baax baax gis ngeen Siteu fa ci mbedd New York yi gis ngeen ko mu doxantu ànd ak ay xaritam ba dugg ci biir restaurant Les Ambassades mu nekk restaurant boo xamante ne macha allah sénégalais yu bari dañ fiy tasee wax dëgg yàlla di fi lekk ceeb yu neex yu am solo Siteu fa doon na fi léegi léegi benn maafe <laughs> macha allah Siteu yal min ji maa ngi lay nuyu di la ziar sama xarit. yaakaar naa ni januar la woon léegi fii la New York. waaw lay bëggee. waaw maa lay fay di wax ne jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. di nuyu àdduna di nuyu jàmm gën gi ma dëkk. di nuyu Sénégal. di nuyu sama sëriñ sëriñ Sidi Mbaga Akuraan. di nuyu sama yaay di nuyu samay famille di nuyu waa écurie Lamsar di nuyu Jongwaar leyaw foola séeréer nuwaanaa leyaw séeréer mi gid mam sinnam kaxatuna jongwaar añño jor bo fayako mi gidma fop mm-hmm. leyandu nga giyam ñanke giyama sallake machallah mm-hmm. ibrahima fay nuy naa la maa ngi lay bëgg sama xarit nuyu sama gaay <laughs> Ndaak Maajoor <laughs> mu tàmboo sama xaritu sudanais bi ma àndal dëgg la Euh. legacy gars yi ma fi nekkal ñoom ñëpp. macha allah ak Big Pato suma maa leen di bëggee. macha allah maa ngi nuyu man tamit samay grand Mo Ndiaye directeur. waaw grand Mo Ndiaye laa bëggoon a wax <laughs> ak grand Mo Ndiaye ñoom nga àndal. ak ak Big Pato waaw man xam nga foofu boo xoolee yow sa cumukaay dafa féete droite man sama cumukaay féete gauche Major mu Tambo <laughs> waaw. di bëggee ñëpp daal. macha allah macha allah di tamit fi ñu nekk nii. Mhm. les ambassades. Mhm. restaurant boo xamante ne restaurant sénégalaise la. fu miin la dafa mel nii. waaw xam naa fi nag. Mhm. xam naa fi trop daan naa fi ñëw bu soog a ñëw fi ay 2012 mhm. a ñëw fi nag. dëgg la dëgg naa ñu nekk ay jàmbaar nekk ay ndaw nekk si dëkk bi di liggéey. macha allah kon tey boo ma woowee fii dafa sama mbégte la. dëgg la dëgg la yàlla moo koy dogal wax dëgg yàlla affaire yi yomb lool ñu ñëw rek ñu ubbil ñu bunt yi defal ñu ceeb yu neex macha allah ñu ngi leen di nuyu bu baax waa les ambassades personnel bi yëpp mais Siteu Euh, nga nga bëreeg Papa ba pare ñu fekk la Dionewar ci benn cadre boo xamante ne cadre bu culturel la cadre bu spécial la nga ñëwaat fii États-Unis encore mais ñu mel nii accoutrement Siteu changé wul Siteu sa ni ngay soloo mindset la wala lan la. waaw suñu royuwaay benn taalibe mooy jël sa bopp humble mooy wàcce sa bopp. Hmm. xam na ni dong nga. Hmm. boo xoolee tey lii ma sol nii lii culture indien la indien yi yëre bi maa ngi koy jëndee Californie mm-hmm. ci biir àll bi e ma gis benn indien bu ko sol mm-hmm. mu neex ma mu dem ba ci moom wax ak moom mu wecci ma ko loolu la rek affaire bi moom pour man loolu oyof rek mooy def loolu taalibe mais ay Baay Faal lañ surtout boo nekkul woon mbër lan ngay doon xanaa styliste ngay doon. waaw mun naa nekk styliste parce que loolu laa jàng. Ah. Eh, loolu laa jàng parce que def naa ko pendant dix ans. Hmm. Eh, def naa ñaw def naa couture. Hmm. jàng naa ko ba war a kii sama mbéy ci commencé. Hmm. mais lamb nee ma lamb mbër rek nga war a nekk. waaw ma sant si yàlla nag. macha allah mais balaa sax ñuy sori ci cadre lamb est-ce que tey Siteu mu ngi xalaat créer marque am wala tey créer ay ligne de vêtement am comme tey ni ñu gisee fi Mayweather. mu am TMT The Mani Team ak yeneen combattant yoo xam am nañ seen propre marque tey est-ce que Siteu mu ngi xalaat loolu. waaw maa ngi xalaat loolu parce que tey man boo xoolee sama slogan rek marque la muy Tarkinda. Mhm. te ñoo ngi ci projet boobu. tey nga xool tey man sama yëre bi ma sol lii. marque bi fàllu. dëgg la en temps moom nga may gis ma koy sol. sama bro moom moo ko moom. dëgg la man daal la même chose man sama gars yëpp. Mhm. am lu ma la. Mhm. Eh, ñoom yàlla dimbale na leen am nañ xam-xam am nañ ay idée yëpp. te ñu ngi ci tànk yooyu xanaa kay yoonu ndaw moo nekkul lu xamante ne yoonu ndaw moo gaawul. Mhm, mhm. waaw dégg nga macha allah. waaw lépp mënagul sotteendoo. mais yaa ngi ci xalaat yoon bi macha allah. yàlla na ko yàlla yombalal bientôt rek buntu dëgg la yàlla ko yàlla yombalal mais si te nga bëreeg Papa Sow ba pare teguñ ci un mois nga voyagé ñëw États-Unis lan moo waral voyage boobu. da nga naan six jours. six jours. six jours semaine prochaine fekkaatuma ko. si vendredi da nga bëre ak Papa Sow dimanche. dimanche bu ci topp nga ne fekk la fa fan nga demoon. ñëw états pour lan lu ko waral. Californie la mu fekk. lu ko waraloon. waaw parce que sama jabar. dafa nekkoon diggante. waaw ma ne comme bëri naa pare xaaral nag ma daw. dem jege ko far yàlla jour bi ma ñëwee fii samedi. waaw dama ñëw sam samedi laa egsi fii. dimanche. non dimanche laa parce que samedi laa egsi fii nii New York. Mm. dem Californie dimanche laa mm. egsi foofu dimanche ay mm. may ko tout temps. Hmm? waaw mu doom bu jigéen ñi. kon da nga daan Papa Sow dimanche. bu ci dimanche bu ci topp une semaine nga am. tout tànk waaw am yàlla may macha allah macha allah kon yow ngénte ngénte victoire bi Papa Sow. waaw doomam la doomam la moom mooy baayam. <laughs> ndeysaan waaw ba pare di sant sama jabar. faama hmm. aw ma fayam. moom mu ngi kali moo ak ay famem Baye Assane papaam mhm. ay yaayam waa Touba mhm. mais ak ay raxam mhm. ma kontaan loolu si moom ak ay tantaan bi mu nekkal foofu ak ay mboxam mboxam yi daal ma amu seen fay quoi macha Allah mu ñëw kali ñoom ñu taxawu ma namu dara daal dafa mel ni jàmm gën laa nekk macha Allah macha Allah am na solo sant leen rek gërëm leen leen wax ne fu dayoo rek fu sant yi egg rek romb naa fa ak ñoom. macha allah macha allah macha allah. mais Siteu fu mu toll nii nga jëm ci euh, disons combat yoo xamante ne combat yu metti la mun nañ ko woowee noonu. Mhm. ndax yaa ngi dugg ci cour des grands. yaa ngi dugg ci VIP yi ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla ay poids lourds lañu parce que ba léegi ñi nga doon bëreel ñu ngi à peu près cent kilos cent dix kilos mais léegi yaa ngi jëm ci cent trente kilos yi. tey nan ngay waajalee loolu. da naan dugg naa danaa war a wax ne man maa ngi ci digg taxaw. ci ñànkatan bi. te man maay seen soos ñoom. ñoom bu ñu safee man maa leen di safal. <laughs> loolu wax ni ñoom dañu saf saaf. xam nga loolu sax. yow ne ñoom maay seen xorom. ñoom VIP. ñoom ñëpp Balla Gaye de Gris Bordeaux Bombardier Eumeu Sène Boy Niang. Lac de Guiers numéro 2. ñoom dañoo bëggoon ma ñëw ñoom. lu tax ñu bëggoon nga ñëw. Ama parce que xam nañ ne man maa yor xolu làmb. Hmm. parce que bës bul fàtte tey man làmb bi ma jële bi ma daan si làmb. busulu jël bi ma daan. bu doon faas la seen mbër daan jël boobu. non ñu tam seen mbër tam seen mbër dëmm. wax ko bu àdduna ñëpp dégg ko. maanaam boo amoon mafia ci làmb. non non man mafia man maay mafia. non mooy mafia médiatique quoi. waaw maanaam ci ay waxat waxat ñoo xamante ne ñoom wax wax rek. yaa ngi dégg. Ah. kon ñu tam seen mbër dëmm. bu doon Pikine c'est la même chose ñu tam ko dëmm ne lii mosu fi am. bu doon géejawaay c'est la même chose. ok dégg nga ma dégg naa la. waaw mais xëy na tey man fi ma egg si ak li ma def peut-être ñu bari xaaruñu ma foofu. Hmm. ñu bari xalaatuñ ne man mën naa lu di mel. jël boobu bett na la yéem na la yow. déedéet loolu tollu ma arafatal ay nii. am na yeneen ñu war a ñëw. déedéet parce que lii yu ñëw yàlla moo ko moom yàlla moo yor lépp. Hmm. Hmm. mais ñun ay jaam lañ jaam yoo xam ne ñun dañoo xeebantal suñu jëmm. mais yàlla mi nga xamante moom mooy buur moom dañoo yëkkati moom dégg moo tax àdduna dafa loo xamante ne imagine tey yow lu di mel man komba yow fi ma def même pas six jours nga bàyyi fa loolu ñëw fii toog fii mooy loolu passé nga ko daal waaw pour man romb naa loolu parce que tey bu la àdduna ñëpp dëlmalee àdduna ñëpp dëlmal la wala bët walla kanam daw utsi la nga wol leen ginnaaw nekkoon da nga leen jàndile dama bëgg uti leneen lu dul loolu lan mooy objectif bi leneen lu dul loolu mooy da nga bëgg a yokk maas. da bëgg a yokk doole wala da nga bëgg a yokk bëre. boo dégloo rek ma wax la ragaluma doole de doole yàlla moo ko am amul mbër bu may ruusal taxawal mais tey damay dem utiwaat wéet wéet mooy gën a liggéey xam ne tey laay soog a dugaat ci làmb tey dama dem utaat ngir gën a wàcce waat sama boobu woon succès succès nit moo ko attan. succès nit moo ko war a attan mais succès warul mënul attan nit xaw ma dégg naa la bu baax. xaw ma dégg nga baat mu dégg naa dama ko war a attan attan ko mooy tey ma xam ne yëre la rek heure sol jot ko ma sol ko mais bu ma nangoo succès yenn ma kon damay sonn sama àdduna mais Siteu dans le cadre purement làmb lan mooy ay chance su Siteu ci kanamu lag de Guiers koo xamante ne cent trente kilos la ah. sutuloo ko tey ëpploo ko expérience kenn daanu ko ci làmb à part Eumeu te jël boobu moom ba léegi mu ngi bañ ah, waaye xam nga yow man damaa jóge ci combat nga bëgg maa dugalaat ci combat mel ni damaa signé combat mais sa manager dégg nañ ko père Max Mbargane ne combat bi daanaka taxaw na que Lac de Guiers Lac de Guiers maa ngi koy hmm. mais dama la bëgg xamal moom tamit xam lu tax ma gën koo bëgg moom pour bëri moom moom tamit moom bëgg bu ma bëgg moom hmm. te boo xoolee Lac de mooy mbër boo xamante ne mbër yëpp koy daw. yow dawoo ko. daw ma ci moom Ibou Yaay Nder waxuma la Saal Yaay Nder de Ibou Yaay Nder combat bi bëgg mu taxaw ci fin saison nga. mais est nga lekk léegi moo neex. waaw maafe bi daa neex kay. moom tey jii da ngay dëggal sa bopp dox ci kaw. waaw yow loolu laaj da wala bu fekkee da ngay laaj a am cité damay laaj bu fekkee xam nga wax ma. non damay laaj. voilà lan ngay bëri ak Lac lan mooy daan Lac de Guiers. prix bi ma waaw ma dëggal sama bopp suul samay tànk ndengeñ sama yaram ñi jam-jam yi ah jam-jam yi nag jam-jam yi ñu ko Lac de Guiers moom bu ñu duggee si arène nationale moom duñ ñibbi te jël amul moom ah xanaa mu xanaa moom mu bañ moom li booyam yi wax noonu ne Lac bu jëlee combat bi kenn du ko wax day dem bëre ji xanaa mu buñ ñëw taxaw mais moom dëggalee boppam mu suul samay tànk na combat bi taxaw fee saison ñun ay ndaw lañ dañuy liggéey man liggéey rek moo ma tax a jóg de. mais ma fayee ko jar mu mais xanaa Madior dafa am lu mu la dee ci entraînement yi génne le point faible Lac de Guiers tax nga ñeme nii wala Siteu la ay Madior ñoom sax xamuñu ay ay ay bëre 100 pour 100 mais ñii samay jiw lañ yoo xam ne depuis ay 2013 léegi maa ngi ñëw fii si dëkk bi. ñoom laa fi mos a xam mais Siteu Siteu attention yow communication bi nga communiqué nii. bi nga nekkee Sénégal waxoo ko est-ce que da nga sori. moo tax tey nga ñeme Lac de Guiers mais Lac de Guiers Siteu Sénégal benn mbër ñemewu ko fa. waaw léegi man ba ma ba ma bëree ba léegi yow la yàlla def nga am interview nii. dëgg la dëgg la wala dëgg. dëgg la waaw kon jeex na. Euh, kon da nga doon seral daal parce que yaa ngi woon toujours ci contrat seral xanaa ki ngay gis mooy seral yow nag maa gis. ah non say mbokk dañ maa gis <laughs> ah? dëgg la mais mais nga ne Lac de Guiers am ci yow Ibou noo ko waxee tey Saalum yaay ndeel Ibou. yàlla dama laa waxuma la du am ci man Saleya Nder dama laa ne daw ma ci Ibu Yaay Nder man. Ibu Yaay Nder doo ko parce que ñoom mbër yëpp dañ koy teggi. nga gis ñu naan Lac de daw mais ñoom ñëpp koy teggi Lac de nag nañu waxante dëgg nag de bu dul Eumeu Sène Eumeu Sène rek moo ko fi daan mais man mbër moo ko fi daan. mais est am nga doole bu bëri moom jamono ji. kan. am nga doole bu bëri moom. yow Boos yow loolu la amateur yi di wax ci live yi ah, man dama lay dottali rek yow xam nga yow da ngeen di wax doole yéen gis nga da ngeen di wax ay doole. Hmm. doole du lu ñuy wax. lu ñuy jëf la. doole du lu ñuy wax. te chaque jour ma bëre daan wane sama bopp ay combat ma damay affronter di dox. Mm. di avancer di dem ak a ñëw ma am wala ma ñàkk. ngeen mm. ngeen di laaj ne kii am na doole wala amul doole doole dañ koy liggéey dañ lekk na Max nee moom yow yow la dëgër baat ak tontu lay doon. Père Max tiitul si man kenn parce que xam na ma moo ma yar depuis ma nekk xale moo may tegal ay 2000 may bëre. kon xam na ma kon xam na ma Tidiane Faye gi xam na ma moo ma yar. boo demee laaj fëgg la sama grand la moo ma yar. nees itam am dem ci nees. nees am na fu mu jaaral la dëgër la dëgër am na fu mu jaaral moom de déggoo li ma la wax loolu yëpp ay bor xam nga la dëgër bor dafa ma yoreel bor bu mat bor sax mooy moom dafa daan sama nijaay man. kan mooy sa nijaay Yékini. Yékini waaw. da nga bëgg a fayal Yékini. waaw. yow sa waay yow xanaa yow doo dégg yow. yow maanaam su ma la déggee képp ku daan Yékini ci làmb bëgg nga koo fayul. yow yaa wax loolu man eggaguma foofu. man dama la ne Lac de la ñuy wax. Euh. da laaj ne daf la yor a bor ma wax la bor bi mat bor laa la wax. dafa bari bor yi. ma ne la dafa daan sama nijaay. waaw te man dama ko war a fayu. waaw. loolu loolu faaw ñu yaatal ci ci kanam tuuti mais. mais mais mais <laughs> yow man waxuma ko de <laughs> yow xam naa ne bi nga am sa àdduna doo ko amati yow. <laughs> mais c'est normal damaa def Canada New York. waaw dama jóge Montréal. man tamit ma jóge pour gisante ak yow. man fan laa jóge nga jóge yow. Eh, eh, Texas Los Angeles. Texas Texas nga jóge Texas nga ma woowee. Texas nga jóge ñëw New York pour tasante ak man. waaw jox ma loxo. xam nga yow sama waay nga. sama waay dañuy yàgg. du du ci gaynde yi. barke Serigne Bamba àllum gaynde bi. <laughs> mais Siteu est-ce tey am na ay promoteurs yi nga xamante ni ñu ngi dox sa combat ak Lac de Guiers. waaw est am na promoteurs yu koy dox. sa manager woo na la. sama manager moom mooy woo am nañu am nañu su nekk. Mhm. mais xaw ma exact man xaw ma si dara maa ngi yow ñoo ci bokk yëpp. Hmm. mais daal pare nga pour dugg ci VIP yi comme ni nga ko waxee Lac de Guiers mooy sa premier choix. wala ku ñëw baax parce que Lac de Guiers moom moo tamit man du ma gën a gore quoi moom mi ma xool ba ne ma moom bu pare na pour bëreeg man man tamit pare naa pour bëreeg yow. mais lan moo tax début bi mu ne woon du bëreeg yow après mu dem ba ci biir changé loolu noo koy jàngatee. non loolu yëpp déggoo li ma la wax parce que tey gis nga nit nit rek la mën a nekk dafa am yoo xam ne kenn du si topp doomu aadama. Mm-hmm. du dëgg mm-hmm. waaw. Lac de Guiers daal man. Mm-hmm. su paree rek man pare naa. Ama Baldé itam dafa mel ni moom bañu la. dafa nekk ci contrat mais dafa mel ni moom pare na sax pour bëri. Ah, nee naa la man maay seen xol ñoom ñëpp man maay seen xol ñoom bu ñu doon ñànk tàng seen soos. waaye yow lan moo tax loolu dañu foog ni yaa gën a neex a daan wala dañu foog am xaalis lan moo tax. non di nga am xaalis di am bis. parce que da xam ne gaynde ngay dajal. dégg nga ma mais man ñooñu ñëpp soxlawu ma leen Ama mu ngi am combat ma ma Gris Bordeaux. Ah. yaa ngi dégg. Ah. Eh, combat boobu combat la. yaa ngi dégg. Boy mooy am combat moom ak Balla Gaye ok loolu combat la. waaw ah. na si dugg. Ah. comprendre nga. léegi da nga da nga dugg fu am solo yow booy ñaar ngeen bokk benn papa mais ah. làmb copinage bi daf fee bari. et dañu bëgg vraiment mu leer tey amateurs yi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy seetaan. bëgg nañ dégg lu leer sa digganteeg booy ñaar deux. est-ce que la mu tax sama question bu ko dagg. non sama question sama copain nga mais sama question bu ko dagg parce que yaa ngi bëgg a cànc Mayane fu mu toll nii ah. est-ce que Siteu mën na jàkkaarloog caméra bi wax ni que Siteu day bërig Boy Niang wala bëriwul ak Boy Niang Boy Niang sa combat yaag Balla Gaye man yow laay faral dëggalal sa bopp nga suul say tànk ni dangeen sa yaram xam ne bis bi kenn du la ko may ku du sa bopp xanaa boobu moo gën a dee bi nga dégg maanaam xale yow xale yi daal maanaam ñoom dañoo war a ñëw te Boy Niang tey yéen fàtte ngeen sax mu ne ne Boy Niang parce que da ngeen di topp ay bal Balla Gaye dëgg la Balla Gaye ku taxaw ne Balla Gaye du champion xamoo mbër mais Boy Niang mbër la te lu mu bëgg guddi yi nii kenn du ko ko jox moo koy may boppam moo koy may boppam mais ñu bari ñu ngi naan Boy ñaa bu dëggalee boppam digganteem ak Balla Gaye risque la waaw mais bu risqué wul du am dara te damaa bëgg ñu génnaat foofu ñu delluwaat fi ñu nekkoon man sama combat man ak Lac de Guiers moo ma ñor de waaw mais sa combat ak Lac de moo la ñor na ko ba pare mais dama ne la est-ce que tey mun ngaa ton sama question Siteu day bëri Boy Niang wala bëri wala. loolu nag dina ump àdduna parce xam lu tax mu leen di ump. comme na nu mu la umpee. waaw noonu la leen di umpee léegi nag bu ñu demee ba si cappaandaw ba ba foofu noonu. Hmm. ba mu war a ne bëri rek moo des. yow su boobaa dinañ leen wax ne nañ bëre wala duñ bëre. Balla Gaye moom da ngay bëri moom moom. waaye man dama si bàyyi. sonaloon nga ko de. man bàyyi ma fi <laughs> kenn Demba Diop. yaa fàttaliku Demba ma la man dañoo daan sama nijaay ñooñu sama nijaay lañ daan te sama nijaay ku ko daan ñaan naa yàlla bëreeg yow. kon yow VIP yow man Siteu dafa mel ni sa discours amatul négociation bi ngay def yow xam nga xam nga da ngeen di jaawale benn affaire communication ñaar moo ci am mooy nga wax li ne ci yow. ak nga manqué respect doomu aadama. man wala ngay neexalaate gars yi fu mu toll nii neexaloo kenn man nekkuma fi di neexalaate. li nga soxla ngay jël man sama bopp laa wax. ok yaa ngi dégg man dama am tim tim boo xam ne yow. seul contre tous. waaw mooy ay tarkindaa lañ tarkindaa. waaw beneen bi ma leen di nuyu. Hmm. di leen wax ne combat ñu am. di ñaan yàlla suñu borom may leen ndam. dinañ ci ñëw ci kanam dinañ ñëw ci combat yi ci kanam mais ci ci Lac de kon fu mu toll nii Max Mbargane mooy gérer loolu. yow combat taxaw na rek ngay xaar. déggoo li ma la man bu taxaw woon nii topp bu taxaw woon nii bu taxawoon nii. nga dëgg bi continuer samay entraînement. non war a ñibbi si mais yow man damay ñaan yàlla mu taxaw ma continuer samay entraînement. Hmm. fin saison ma bëre làmb ji. Hmm. ñu tàggalikoo. ñu tàggalikoo waaw sa sa sa diggante booy Niang ak Balla Gaye tey ñoom ñaar bu ñu tàkkalikoo séntu nga fa adversaire parce que. premier janvier la non non Balla Gaye dafa am ay combat. Ah. Balla Gaye dafa am ay combat yu si signé. Balla Gaye dafa am combat. moom disponible fii ak juillet. parce que waaw Balla Gaye dafa am combat moom Boy Niang. Mhm. amal combat moom ak sama grand frère Eumeu di koy mhm. nuyu. bu baax grand bu baax. Eumeu Sène waaw di koy wax ne moom dégg nañ lu mu wax si digganteeg la nit la. man mhm. damay gis yenn yi di wax ak Eumeu Sène nii mais xamuñ ndeysaan nit ñu baax ñi rek la ñuy wax yenn yi mais maa koy nuyu ni ku baax. lu indi seen relation yi ñaar. kan yow ak ba mu nekkee xale ba léegi damaa bëgg Eumeu di koy topp mbapat bu mu dem ma topp ko. man ma dëkk Pikine ñun xam nga tax ñu naan jaama gën lu tax. Diamaguène ñun ñun ci Pikine lañ bokk. Pikine 16 commune la. Diamaguène ci la bokk la Diamaguène mu ngi ci digg bi boo jotee ginnaaw raay Diamaguène ngay jot. mais ñun kenn boolewuñ ci Pikine moo tax ñun ñu xam nga ñu am benn slogan Diamaguène Diamaguène Diamaguène. Hmm. gëm suñu bopp. xa xuus. waaw mais waaw utal suñu boobu commune Diamaguène ñu defal ko commune. Hmm. mooy gëm suñu bopp di xam ma la. Hmm. parce que kenn boolewuñ ci Pikine. mais Eumeu seen moom moom dañoo mës a boole ci affaire bi. dëgg la mais mais Siteu ni nga yombalee itam yéen xale yi ngeen bëgg a ñëw forcer la mais grand yi dafa yomb quoi grand yi bàyyiwul leen ak yàlla euh, grand yi ba ñu fekkee sama ñoom tons nan lañ leen def mais mais mais tafaatin gis nañ ko mook Boy Niang gis nañu Lac de Guiers ak booy Niang waaw gis nañu lag de Guiers ak Papa Sow mais toujours VIP yi duñ ko yombalal booy ban booy ah, moo réussir a gum test ci VIP yi waaw déggoo li voilà booy nag man booy ma gis nii gëm naa da ngay réussir de ay Ama Baldé ma gis nii ay Boy Niang bi ma gis man dama gëm ne dañ koy réussiral ba pare paas la. barke Serigne Bamba. dañ ciy pare paas la. dama gëm man dama ko gëm. Euh, dama gëm ne dañ koy réussir. question nag man ñële. waxewu ma ko ñële dañu dañu màgget maanaam waxuma la màggete te waxuma tamit ku jël ne maanaam dama leen minimiser wala leneen non man far man faraluma leen. Mhm. man am naa droit ñaari ginaar bu ñu doon xeex sama faral ki ma neex waaw ah, ki nga ki nga gën a jege daal nga faral booy ñaan nga gën a jege a jege ñoom laa faral nag te dañu may ñaan yàlla ñoom xam lu ma la ñu dëggal seen boobu egsi ci kaw mm. te foofu kenn du leen ko may sama combat man ak Papa bi avant combat bi kan ngay wax fenn fan ngay taxaw ne Siteu mën naa daan Papa mu gëm la dëgg la amul forme Papa Sow entraînement yi mu ok léegi nag yow du wax ngay jëf te li ngay jëf net la ci may est-ce ñu jëm mystique am na ci cër mystique am na si cër kay bu baax. làmb doo bàyyi dara làmb yëfu ceddo la. Hmm? waaw liy coor dañ nee na làmb yëfu seytaane la. làmb doo bàyyi dara. dëgg la te waa Pikine bu ñuy wooyee di ba bàyyi ba bàyyi Balla mu daan Boña. Hmm. Boña mu am defet de mais ñoom ñoo gën a am defet. Pikine mooy am defet boobaa. waaw ñoom ñëpp war a génn topp booy bi. Hmm? waaw ñu ko mën a influencer influencer ko ñu mën a wax ak moom ñu wax ak moom. kon ci supporter yi déjà. Balla Gaye warul moyen ma seen live yi ma gis yéen ni ngeen di minimiser Boy Niang loolu nu may méttee. ah ñun. waaw yéen ñëpp kay. ah. <laughs> Siteu <laughs> mais mais defal naa minimiser ci ban côté. gars yi dañuy joxe seen xalaat waa xalaat yooyu baax na et lu ñu bett lu ñu jaaxal mooy. man man man dama koy wax chaque jour Balla Gaye ku taxaw fii si làmb ñi ne Balla du champion da ngay wax lu la neex. mais Boy Niang dañ ko nangul champion. waaw mais te gis nga booy Niang moom tamit. Mm. te di ngay wax ne Balla mm. maanaam sañ-sañ bu doy sëkk ak fattu ko moo koy daan. Hmm? Balla Gaye boo ko fattul mënoo koo daan. doo ko mais Siteu dafa mel moom di sëgg du ko daan. ngay xool per ak per. bon dama bàyyi. mais mais mais Siteu mii dafa mel ni moom yow mel ni booy Niang bu la amaloon xeex bi nga jël de. Boy Niang bu la amaloon xeex bi nga jël de. non bi moo ko moom xeexam la. <laughs> mais dañuy xale ñu nekk xale. ay nit yaakaar ko yaayam yaakaar ko papaam yaakaar ko. dëgg la dëgg la comprendre nga. kër dëggool jar ma man bi ma nekkee booy. man li ma sëkk ak papaam yenn kaddu yi ah. ku si nekk ya am koo faral. Mhm. ñoom kii lañ faral ku si mais man ñaari ginaare bu ñu xeexee damay. Boña sama frère la sa frère la dëgg la. Ah. sa la ba mu jógee ci kombaam am digganteem ak Balla Gaye. loolu sa yoon mais <laughs> mais Siteu. Ah. Euh, euh, Boy Niang dafa ñëw première face à face mook Balla Gaye tàngal. deuxième mu ñëw mu équilibré. waaw troisième bien vrai que triplex la woon ñu gis booy Niang bu sedd ba ak nit ñi di coow naan Boy Niang dafa blessé. mais est-ce que naxu ko. mais loolu moo tax mais gars yi nekk ci live bi. loolu la ñuy wax jaxase na léegi jaxase na la live bi boo leen wanee lu leer ñoom mooy loolu ñoom doo leen woon dara lu leer danga leen di bàyyi ñu ma xamuma la mais est-ce que Boy Niang lu mu def. defaat fii defaat fii defaat fii yow ban ngay ban la indi nga yaa. waaw ay Boy Niang mu ngi France demul France. loolu daf ñu kon nag léegi yow ngay tey def nii. mais Boy Niang bu ñu ñëwee gis mu sedd guy maye woon une minute dindi une minute def ko cinq minutes mais gars yi dañuy posé ay question est-ce que tamit une minute boobu noonu est-ce que du ko appliqué te man si une minute yooyu ñu si ñu si doon voté bu doon carte ñu si voté man ci lay ñuy voté man ci laa bokk. bu ñu bëri une minute avantage Boy Niang la ma la wax du nga ko may dara. Balla Gaye déggoo li ma la wax Balla Gaye amul lu nit di indi mu nekk avantage si yow mais sañ-sañ. lay génne ci bunt boo xamante mënoo ci génn. su may déggee bésu dund du bésu dee. waaw bésu du waaw. wala dee du bésu dund nag jeex na. waaw mbokk yi donc gis ngeen euh, wax dëgg yàlla waxtaan bi am na solo ak Siteu trop. Euh, gis ngeen ko ci mbedd New York yi ba ñu fu ñu duggee biir restaurant les ambassades wax dégg yàlla alaaji Mouñaay Darñu alaaji Big Pato Darñu madame booy ak wax dëgg yàlla ñoom Pape. ñoom euh, euh, grand yëpp macha allah grand bi nu mu tudd ci sax. Maajoor Maajoor ndeysaan tur bi original. <laughs> wax dëgg yàlla ñu dal ñu may Siteu. lan ngay tàggatoo mbokk yi lay seetaan ci luttetv.com. waaw li may tàggatoo rek mooy maa ngi nuyu ñëpp di nuyu ak lu jël làmb di leen wax ne lépp luñ fi wax loo xamante ne tey njuumte la. Hmm. su ñun la lépp lu ñu fi wax loo xamante ne lu ñu nit di lu wala lu ñu nit di nawee rek mm-hmm. si yàlla la suñu borom mm-hmm. waaw di sant ñëpp di suñu sama grand yi fi nekk ku mel ni fëgg la mm-hmm. ku mel ni nees ku mel ni super étoile ñoom ñëpp ñu ngi fii Amérique waaw pakala waa lamsaar yi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen yeey gisuma leen sax Mm-hmm. parce que temps bi mu amul yow yaa tax ma jóge Texas. ñëw fii tey yaa ngi lay rataloo sa vol sax parce que yaa ngi war a dem nii ñëw fii juste pour deux heures de temps pour gis ma ma la ciy remercier bu baax. parce que saa yu ma la soxlaa nga taxaw maa ngi seen ginnaaw maa ngi seen tànk maa ngi seen loxo. Mm-hmm. waaw di nuyu àdduna daal. Mm-hmm. di bëggee ñëpp waaw di ñaanal ñëpp jàmm. waaw di sant ñi nga xamante ne tey ramdaan bi nga xamante ne fii la nekkoon. nekkoon fii New York yàlla suñu borom jëlee ko fi booba léegi kenn mm-hmm. gisuñu wax mm-hmm. génnuñu woon booba léegi maa koy jaale ay mboqam di koy jaale waa New York ñëpp sans mm-hmm. cesse nekk fii di dafa mel ne gis naa ñëpp barkama serafa di nuyu bi koy nuyu moo nekkoon ci technique bi tey waaw ba pare di nuyu sama booy jóge Brésil nekk fii ay ñoom jiili yaa ngi dégg ay Adama Cité ñoom ñëpp ñu ngi fii gisuma leen mais maa leen di bëggee di leen wax ne waaw yàlla suñu borom def jàmm fi daal yar ak teggin